jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen bu baax a baax am kontaan ak mbégte comme niñu leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Pikine euh, ki ñu fi woo nag mooy champion bi booy Niang numéro 2 dajale fi képp koo xamante ni nattangom mbërëm la euh, ngeen yëngu ci làmb mu woo leen fi ngir waxtaan boo xamante ni fas yéene ko dajee waxtaan ko ak presse bi waaye nag ki ma toogal kenn du ko présenté ci Pikine ki ma toogal gunge na képp koo xamante ni champion nga dëkk pikin gunge na la ci sa bis tey buñ ko fekkee ci bisu Boy Niang duñ ko laaj lan moo xew muy Pape Sarr borom rek DKR production ñu ko nuyu bu baax di la siyaar. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi lay nuyu suma xarit di nuyu waa Wasaare waaw di nuyu suñu caméraman bi waaw suñu rakk tey moo woote woo Pikine yëpp woo képp tamit ku bokk ci làmb du Pikine kese. Euh, boo gisee loolu am seen laa àndal mu ngi ñëw waaw loolu la rek waaw mu war a teg ay point nag waaw ñu xool nag la lay wax quoi waaw waaw. waxtaan bi lan nga jort tant que doomu Pikine loolu la Boy Niang doyee bi. waaw il faut bu mu ñëw nag. waaw nañu xaar bu mu ñëw rek ñu xool. comprendre nga fi mu toll ni bu mu ko waxee fii du safe quoi waaw comme mooy ndeyu mbir bi moo woote waaw nañu xaar ba mu ñëw rek hmm, waaw. Pape Sarr ku ne xam na ni sa diggante ni mu rataxee pikin ni nga doone symbole biir pikin euh, population pikin fi ñu la teg lépp lu xale yi woote yow yaa ngi seen ginnaaw loolu lan la. waaw loolu lu yàgg la du tey du xale yi depuis mag ñi la tey man nekk fi mun naa wax ni tey guddi ñu toll nii man maa fi des ñi ma fi doon gunge di nekk ak ñoom ci liggéey bi. tey jënd nañ leen waaw ñu ngi si beneen wàll léegi ñu mu fa nekkoon waxuma ay mbër de ñu mu fi nekkoon di teewal pikin di xeexal pikin di reyante ndax pikin tey jënd nañ leen tey man maay sël ki fi des kon li ma siy wax rek mooy li fi jot a jàll léegi dégg naa seen association boobu ma koy rafetlu bu géejawaay bi mais dafa def erreur tuuti mu ne ndax tàggoo naa man mbër yi ñoo may tàggu mais du man maa leen di tàggu affaire u Lac de bi dafa génn dix jours kenn génnul wax ci. ma dox fa onze mbër onze mbër yëpp yor sama numéro. dégg nga écurie bu nekk ku si nekk tête de file bi yor nga suma numéro. dégg nga loolu dem si bëgg tontu tuuti. yaa ngi may dégg. bi mu génnee sorti boobu bi mu génnee am na cinq jours amul kenn ku ci génn ku bokk foofu ku ci wax. su nekkoon affaire yang baas la ak ay bind tànk Pape Sarr du génn Lac de Guiers ak Eumeu Sène jàkkaarloo nañu fële ak Gaston ñuy waxante seen yaan baas génn naa di wax ci dañ dañuy wax li fi nekk ñoom dañoo dem ci Lac de Guiers Lac de ne leen affaire sëriñ man affaire u sëriñ génneewu ma loolu du suma domaine loolu boroom dëj bi mun na jooyal boppam dëjam muy Eumeu Sène man li ma génnee moo di gis naa li nga def si yow Eumeu Sène gis naa li nga def si komba booy ñaa bi booy yi ñoo la bëgg mais bëggoo sa rakk yi loolu moom a génne te loo wax jooju moom a génne wax jooju képp ku dul man muy ku juddoo géejawaay ku dëkk parcelle monde entier da leen metti parce que loolu noonu loolu moom a génne loolu laay wax waa association boobu man du man maay tàggu mbëri mbëri ñoo may tàggu man man seen kilifa laa du dëgg rafetlu naa nag seen association boobu parce que association teguñu dara sama der yaa ngi may dégg gis que ñoom dañu ne quatre mbër man onze lutteurs laa fa dox. donc onze lutteurs yi. Hmm. si kanamu ñu ñu ngi ñaanal suñu papa jooju. muy père Balla Gaye per Balla Gaye mu ngi toog Youssou Ndour doomam mu ngi toog. dox si naa ko. di ko bugg boole Calme Ndour. Hmm. jubóowuñu muy booy bu yaru di sama rak ndigal yor na suma numéro woo naa ko di ko proposé mbër du ñaar gabar sin fu mu dëkk du géejawaay woo naa ko tey maa ngi doon dox ak rakku Sa Thiès ba wax seeg Sa Thiès kon Sa yor na suma numéro du dëgg comme nee nañu nañu ut numéro yooyu noonu dégg nga Golo mu ngi suma numéro dégg nga muy entraîneur lan moo ko sabab lan moo tax seen association boobu laa dégg ñuy wax waxu téléphone ak numéro ku nekk dafa war a yor ñoom ñëpp yor suma numéro. kii génn vidéo bi def cinq jours six jours kenn génnul interpellé la daguerre affaire yu Yane Baas affaire yu Serigne affaire bind tànk génnewuma pour mu clair. mais Pape Sarr est-ce que duñu ñëwaat tuuti. Ah. parce que nit ku dul juum amul. dafa juum la waaw dafa juum mais est-ce que yow waroon nga mën a génn ne Eumeu seen na delloo avance. si. si parce que tey bu desoon ci affaire yu yaan baas affaire yu maa la mën ak doo mbër ak màgget ngaak lu kenn xamul ba euh, bâtiment baa ngi sol ndox yooyu noonu duma si wax mais tey dafa jóg tànn ñaari xale yi mu gën a bëgg ah, mu bëgg leen tàqale kon loolu làmb jaratu ko loolu moo taxoon may waxee noonu yaa ngi may dégg est-ce que man géejawaay du quatre mbër laa fa tëgg onze litres laa fa dox deux may may may may waxaat ci mbër bi ne Néko Réel laa faral mbër bi ma doon dox foofu mu ne Néko Réel laa foral man Néko Réel bu muy bëreeg Tyson 2 maa indi Tyson 2. Alain bi tëgg làmb ji moog la da guerre seet la da ak yaayu Alain seen ñaari maam yee bokk ndey ak baay tey ma leeral kooku kon géejawaay la for. Néko Réel kan nga ko bëggoon boole ba wax ji indi loolu. sa euh, euh, euh, les deux waxul c'est problème mooy man waxu janvier mënu ma bàyyi ba décembre di si tontu waxu janvier janvier lañ ko waroon wax mais du ma bàyyi ba décembre coow lii am ma si tontu dégg nga indi nañu préparateur missi bi pour Pape Sarr mu issué ma wax ko li ma koy wax mu féetee boor ñu indi keneen mu indi waxu janvier mu féetee boor léegi dañoo génn jéggalu nañu xool fu dëgg bi nekk man damaa dugg foofu dox onze litres bàyyi Pikine boobu maa ngi summi naa yére boobu balaa ñuy naan kii ba pare mu ngi naan. Pape Sarr si man du ma supporter. kan moo wax loolu li ngay wax naan rek ngay wax. non les deux la. muy suma rakk bu yaru. mal entendu la. génn na suñu bi ma waxee loolu mois de janvier la ba pare corona amul bi ma koy dox corona amul man lu ma wax les deux tooñ ko parce que téléphone la ñu wax mu mu ne ma kii moo yor ay kàddoom jéey jéey laa waxal. dama koy wax mu leer jéey laa dem fay ko prix mu ne li ma fay dam koy may les deux su amee komba maa ngi ànd ak ay témoins muy jimboo xam nga jimboo si 4-4 benn centième bu nekkoon lii sa limaamu laay dégg nga bi ñu jubóowee ci prix damay wax prix bi 4 million laa ko fay. nga fay pour mu bëreeg ne ko rel pour mu bëreeg ne ko sama diggante ak yàlla Jimbo parce que il faut ma génn leeral les waxuma ko dara lu ñaaw. benn erreur laa def def naa ko erreur mooy euh, Dieye dafa dëggal Abdou Diouf bàyyi lees de damaa jum foofu damaa def erreur foofu waruma dugg foofu est-ce que xam nga li ma la wax mais li li li li mu wax noonu man damaa am témoin mooy ñi ma àndal di liggéey laa fa àndal ci Dieye baat boobu lees de wax Dieye moo ma ko wax moo ne ma li nga fay lees de dam ko koy may bu amee combat. dégg nga jubóowuñu dem naa feneen mais janvier waxu janvier nga bàyyi ba coow li am di ko génnee décembre waxu janvier nga koy génnee décembre dégg nga indi indiwaat seen préparateur musique bi bu ma ko tegee ci palaasam ñu ñëw tegaat di defaat ay seen conférence de seen conférence de presse boobu rafetlu naa ko mais bu yàgg lañ waroon génn bi bi bi la de guerre génnee bu ñu ñëpp ñëw wax ma parce que lii xam nga sëriñ Touba lan la euh, Ablaye Wade lan lañ ko bañee bëgg sëriñ Touba. ku bañ Ablaye Wade rek ci bëgg Serigne baa nga ko bañee waaye ku bañ Pape Sarr bëgg bi mu bëgg Pikine moo tax tey su ma dëkkoon géejawaay ku bari soppee laa fay doon doo gis benn doomu géejawaay bu may ŋàññ pikin laa dëkk bëgg pikin laa dëkk léegi nag man seulement fi des ñi ma yàlla def na nag kenn ki mu ci doon nekkal di fi xeex ak moom yàlla yóbbu na ko bitim réew mention spéciale muy jazz bu AS Pikine ñoom Toldo ñoom hélas ñaa Afrique du Sud mais dafa am ñu ma desaloon fii ñëpp lañ jënd man seulement fi des man nag ku naqaree jënd laa man ku naqaree jënd laa ba pare dama ñam lu neex ñam lu metti déggool li ñu ma fi nekkaloon Pikine laa la wax naan ay drapeau drapeau drapeau bi daaneel nañ ko doomu Pikine baa ngi nii toog. xam nañ licence su promoteur boobu ñuy wax Pape Sarr ubbi naa kubéeru foos dugal ko ci ba coow li jeex. Hmm. waaw licence su promoteur boobu ñuy wax ah promoteur boobu ubbi naa foos dugal ko ci ba coow liy jeex Eumeu Sène bu waxoon lii la daguerre Eumeu Sène dégg lu musul dégg ci àdduna hmm. man doxewu fonctionné noonu. dañuy xool fu erreur bi jóge ñu dajaloo dem ci moom mais sans Pape Sarr waru woon génn man dinaa tàggu Eumeu seen wala Boy ñaan ñoom ñooy def tàggu ma man duma si tàggu kenn parce que dama leen a liggéeyal ba egg fii dégg nga bu dëgg lii mooy point bi histoire bi lii la dégg nga ñoom seen conférence de presse boobu ñu ngi indi affaire yu Yang Baas affaire yu Serigne génnewul Pape Sarr li génnee Pape mooy xale yi la bëgg a ëmma seen bëggoo sa rakk yi loolu moom a génnee dégg nga ñoom ñëpp ma leen di gërëm ku mel ni fifty seen ñi fi defoon yëpp gërëm naa leen du ñu samay noon man doxuma fa tëgguma fa quatre mbër onze mbër laa fa tëgg waa waay onze mbër laa fa tëgg. am na solo Pape jërëjëf. ma lay jaajëfal bu baax a jërëjëf mbokk yi kon ba tey ñu ngi ci direct bi <laughs> ci wasaare lamb ñëw ngir dégtal leen beneen daanaan.